def euh, benn randonnée pédestre xam ne rek euh, boo bëggee nekk ci activité il faut nga am wér yaram te boo bëggee am wér yaram bien vrai que war nga xool li ngay lekk waaye war ngay def ay exercice physique donc tey euh, moo waraloon tey ñu organiser ko tey mu tombé yi tamit si le 20 20 20 20 juin bi muy muy fête des pères ñu fas yéene sargal aussi suñu président waaye sargal suñu papa yi sargal suñu borom kër yi ak euh, suñu caabi ñëpp ñëpp ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal di politique lépp rek ci bonne humeur mais nag ak euh, ak ànd ak sant marché ñi ngi jógee rond point euh, ñi ngi jógee cœur de ville ñëw nañ fii rond point orange Médina Baye bu soobee yàlla dañuy fas yéene rek dëppaat incha allah xaw nañu am nag xel mu xaw a ji fi yàlla tuuti ndax ñun dañu demandé woon autorité pour ñu mën a ñu mun ñu encadrer ñu mën a def suñu suñu match euh, te te wax dëgg yàlla du am benn gàllankoor. Hmm. wax dëgg yàlla ñoom itam bu ñu déposé yi di am na nañu retour accepté nañ ko mais am a grande surprise à notre grande surprise sax la ñuy wax gisuñu benn service d'ordre boo xam ne moo ñëw a war a encadré lii te normalement noonu la war a demee gis nañ ci barke de moo yaay ñu fi doon dox ah euh, am na ay policiers yi génn nañu militaire bi génn nañu accompagné leen ñu dox seen dox mais pourquoi defalu defaluñu ko ñoom ñoo ko xam mais ñun alhamdulilah rabbil alamin ko tout ça c'est bien passé dëpp na jëm nañu ñëw nañ ci am nañu yaakaar dañ dëppaat si jàmm ak salaam insha allah jafe-jafe metti na metti na lool lool lépp yokku na kenn du wax nerf yaa ngi ci terrain bi mo kenn moomatul alalam yow mënatoo tëdd amoon temps da ngay mën a sa biir ëtt mu tàng kaw lax nga tëdd ba ba ba fajar nga jóg dugg sa biir néeg mais léegi kenn mënatu ko agresseur yaa ngi si lu ko waral ñak liggéey ñak xaalis ñak dépense fu dem jëm ñun nag bokk nañu si ñi nga xam dañoo gëm le projet de Pastef c'est pas c'est pas Ousmane Sonko ok bien vrai que il est très important à bagage yi mais le projet bu ñu jaay ñun projet bobu ñun dañoo fas yéene bokk suñu euh, protéger ce projet là donc on est là euh, entre soeurs aussi entre frères machallah, allah défendre ce projet là et dire à tout le monde que ni à Pastef am na fi et Pastef euh, les membres euh, responsable des fois xëy na euh, temps bi dina ko xaw a dina ko xaw a manqué ak yu bare waaye nag ñun en tout cas on les ñu en tout cas on est sur le terrain am nañu yaakaar ne rek yooyu moo leen war a mën a téye ba ba ñëwuñu mais incha allah rabi dina baax